démb man na woon ko ci lool te moom moomu Xaadim Samb Jeylaani dafa am fu mu jaar ak pap Alé Niang Pape dafa nekk journaliste di tàmbali nekk sud banlieue yëkkati na ay kàddu nag wax fi mu jaar ak pap Alé di wax ne Pape Alé Niang suñu école lañ ko formé ñoo ko formé loolu du dëgg ma wax ko fii mu leer Pape Alé dafa jàng fi mu war a jàngee Pape bi jàng jotee dafa dem jàng ba am maitrisam am en sociologie Pape Alé Niang c'est un sociologue avant avant d'être un journaliste jóge foofu dem ISIC jàng li mu war a jàng mais nag ma fàttali leen benn affaire par rapport à cette personne là muy Khadim moom dafa bokk ci askan woo xamante ne ci réew mi askan wu ñu naw la ci seenu taxawaay askan woo xamante ne la dañu leen respecté ci seen taxawaay parce que dañ doon taxaw fekk lu yàqu ñu defar ko fekk lu jubul ñu jubbanti di waxtaan ak kilifa ci daan di tinu kilifa waaye bu ñu demee ba yegg ci réew mi farak maki Sall tax nga taxaw ñu dëpp la ay caméra ngay wax lu ñaaw jëmale ko ci ay gor yoo xamante ne démb ak bërki démb séq nga ak ñoom teraanga loolu moom la concerné mais nag dama ko bëgg a fàttali rek moom Khadim Samb ne ko démb bi nga xamante ne Macky Sall mi ngi ñëw ci réew mi ak Ablaye Wade ak keneen fekk na mu mënal boppam fekk na mu am lu mu suturloo moom njabootam bu ko dara jaral ci àdduna politique tax mu wax ci penc mi loo xamante ne dañ koy xeeb wala lu koy doy diloo wala lu koy perteloo ay dignité te fii may wax ak moom bu taxawee mu seetaat boppam ci réew mi war naa xam ne mi ngi ci yoon boo xamante ne bu ko wàccul bu ko wàccul lim koy jural mooy mu gën a di ci kanamu sénégalais yi parce que ku taxaw ci senegal nekk ñu ci royaume ñu nekk ci république nga ne buur dafa war a tëj dafa war di ray nga ne buur dafa war di tëj dafa war di ray ma bëgg ko fàttali ne ko nag ñun nekkatuñ ci nguuru buur ci li ñu nekk xam nga lan la ci république bu normal ñëpp am droit bëgg jël réew mi ñëpp am droit wax seen xalaat ci réew mi à la limite même c'est de tenir des propos pareils ñëpp di ko relayer sa ay moroomu sëte ki sëtaat di la tontu parce que nit nag bu amee fulla ak fayda doon mag moo ko may boppam te fii euh, dara ñoro fi bañ koy màcc ba ngay am teraanga Macky Sall falawul ba ngay am teraanga xëy na ko Sall mënalul boppam bu ñu dem ba toll ci jamono bii lépp loo liggéeyoon ci histoire u Sénégal nga bëgg koo mabal ndax bëgg neex buur buur bëgg la nag bëgg buur buur bëgg laa ko gën te moom ak Pape li ma ko waxoon dëmb laa koy waxaat nee na Pape Alé kenn bëgg gënu ko ko bëgg nee na Pape Alé kenn gënu ko koo xam dëgg la waaye nag day fekk ne booy wax ci nit farak nguurub nga wax bu mu tax nga wax naka sudul noonu na nga waxee sa aqulaayu taala loolu mooy dëgg te moom dafa am fu mu toll ci réew mi am nit ñu ko respecté am nit ñu di ko seetaan mu am parcours ko dara jaral ci àdduna muy yàq parcours parce que dafa ànd ak buur wala dafa bëgg lu neex buur Pape Alé Niang nag li mu séq ak moom lenn kese la jukki ci ñaxam tàbbal ci jëmmam képp amul leneen. d'accord alors euh, pratiquement ñu euh, ci fin wu émission bi euh, temps bi ñu cërale woon pratiquement jeex na mais am na des régulateurs sociaux yoo xam ne. dañu nekk ci biir réew mi ñoo sax mën nañu wax sax ne ñoo téye réew mi euh, depuis euh, euh, les indépendances en tout cas depuis bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo fi sampal diine ñu ngi fi ba tey muy xalifa généraux yi boobu ba tey nag gis nañu benn silence boo xam ne constaté nañu ko ci lu jëm ci violence yi xew ci espace politico sociale bi loolu itam jàpp nga ne peut-être silence bu war a continuer la wala c'est dans l'ordre normal des choses wala dañu war a taxaw temb jamono ji ngir arrêté li nga xam ne mel na ni si ñàkk bala jëm euh, euh, gis nga Jeylaani man dama jàpp ne dañoo nekk ci réew moo xamante ne suñu kilifa diine yi dañ cee am cër bu mag a mag a mag kilifa diine yëpp nag laay wax ak këru diine yëpp dañoo am cër bu mag a mag ci réew mi am cër bu mag ci réew mi di doxee ba tax na man leen rek laa mën a am lu ma leen di ñaaxaat mooy li nekk di xew ci réew mi di injustice di yëkkatiku di dal ci doomu réew mi te doomu réew mi moomu nekk seen ay taalibe bu ñu woote woon tey ji ñoom ñun ñu bàyyi suñu yitte yëpp dem wuy ji leen bu ñu gisee nag injustice boo xamante ne dafay dal ci kaw ñooñu dafay jaadu ñoom ñu yëkkati seen ay kàddu parce que nag réew mi ñëpp ñu ngi toog di seetaan ki yor nguur di jël doole nguur di ko dóor ci kaw askan wi di ko dóor ñi dëkkee ci ci ñi dëkkee réew rawatina ay citoyen ba tax na ñun leen rek la ñu mën mooy di leen wax ne que nañu gën a góorgóorlu ci yëkkati seen kàddu wax ñi yor nguur wax ñi yor nguur ci ñu gën a góorgóorlu wattandiku violence parce que nag violence kenn bugg ko ci réew mi waaye lii di raam nii bu fekkee ne ñoom yëkkatiwuñ seen kàddu ëllëg ci sibir mën naa yegg foo xamante ne artu dafay wees ci atte la ñuy toll ñaanuñu ko yàlla parce que ñun ñëpp ñoo bëgg réew mi ñun ñoo bëgg réew mi nekk ci jàmm ñun ñoo bëgg réew mi nekk ci dal parce que jàmm ci la lépp xaj mais jàmm day lalu ci kaw dëgg jàmm day lalu ci nit ñi di waxante dëgg te ñoom dañoo am cër bu rëy ci réew mi réew mi yëpp ànd mànkoo déggal leen réew mi yëpp ànd mànkoo jox leen cër bu mag a mag donc moom ñoom seen rôle mooy ñu réguler situation bi nga xamante ne moom moo nekk di xew kii tooñ ki yor doole ki yor nguur di ko dóor ci kaw askan wi ñu téye loxoom man dama jàpp ne loolu moo am solo mais nag Jeylaani bëggoon naa jeexal ci wax ne bi mbiri Pape Alé yi amee dafa am ñoo xamante ne dañoo yëg seen yëkkati seen ay kaddu li ma lay wax nii nag révélation la jibal ay kaddu Jeylaane xaw ma yaa ngi may dégg bu baax wala dégloo ma mais dama la bëgg a defal révélation boo xamante ne tey jii nga bàyyi ko xel mu jublu nag ci ñooñu nga xamante ne ñoom dañoo jàpp ne wax dëgg yàlla